Sen vous offre votre série Aja. Aja, c'est safal bi ngeen tàmmu ci seen biir waañ ak épices ko defare. di jox Aja. Aja, Aja, bu neex mo len di ñaanal kooru Adja safal bi aja Adja <laughs> Adja. Adja safal du de Ma kikuramu mai harito J'ai un peu de temps pour vous. Oui, c'est la vision, Eric. J'ai bientôt l'examen..! Jusqu'à 5 heures, il faut te reposer J'ai pas le choix. Bon, Kai, nous avons des choses à faire. Princesse, Ami, Princesse, Yaes. Quoi de neuf Djougal, c'est à faire. Je ne vais pas parler. Tant pis. Kai, nous avons des choses à

waawi sikki noon finalu tawi quoi dernier soirée avant coré fowara waat tamit wakay to xadu waaw man kay instant moom mais fu mu toll nii xoolal soo dur yooyu yaa ñàkk jom eh bàyyi di jàmbur sama fii a yéen tey mbir mi tay dëgër na di subalik dara dara doxut ah yalla baxna wa he way ki dafa naa Adja nag moom la kay tey aja ci lo nek aja ka rafet ak dëggal ak a ma sha allah dara fay ko dama la sama xel mi dana rës dal na waaw balaa wax jox ji bari gi léegi moom looy dugg tey. xanaa ceebu jën jagay rek. suñu hymne national. jeex na. Eh. ah ma jox laa jaatu maat bi iya, ba pare. jëlal baax na sama turandoo. jeex na. mag baag bu ndaw bépp nga nii. ma jëlaale vinaigre rek. jëlal. xorom sa turandoo nga man ko Wow. daa bëgg naa jéggi sa xol macha allah marché nag daa dëgër jëlal jëlal noonu nah, teel waaw Adja lii lan la nag marché daa metti nga saa yéen def ma ni rek déggal loolu man daa yàlla sa jàmm yàgg amiin Adja rek déggal ak yàlla sa jàmm na yàgg merci jërëjëf ba suba incha allah ah. waaye yéen kii moom naa am lu ko dab ci yoon bi ñaari junni sama yàgg na def ni yaayam ci ayib na beneen ajaa dikkaat xool ba xam. oui chérie. Comment bulletin génn na. ñaata 17 ah, comme d'habitude. sans surprise. vraiment maman.. je suis fière de toi. félicitations. Et au moment ma mës décevoir. merci. c'est bien. waaw Doudou.

ah papa pour moi c'est bon ah parce que maa ngi koy boot comme Messi sama moyenne dix. doomi Baytir Seen sëtu betir sen dere du rir te du du def ne bayam be ko dakk fop Ndakaaroo ko yak rek ah, te aja ay wa la ngeen def waay ma la do ma la sam féete te ma ngeen def alhamdullilah aja na ngeen def ndala mooy yóbbal ay yóbbal waaw d'accord sama laa na ngeen def kay na war nañ de ah? yow bismillah jogay na ngeen def alhamdulilah dalal ak jàmm maa ngi dem defaral la ndox nga sangu ah. seen seen bismillah. boo gisee sa kër gi bëgguma fi bari tànk lii moo tax. nit nit yëgseegul nga ne ko ma may la ndox ma sangu da ngay dal xaaral ba ma ñaan ko ndox. du ñëpp ñeme ndox. jóge yow tamit. da ngaa jóge dëkk ba voyage bi ñaq bi coono bi ak li ngeen maye fii nii léegi quand dalay may ndox ngeen relax rek. ba nga tay rek jigen da ngay tay way do eppal li lepp nak li waral xam nga ko bu sa aawa dul séeréer sab ñaareel war na bar nga serer mu don sa sam ñaarel ciosan la la wax de xam nga lima la wax. cogoy defal ndànk rek ngir yalla rek do jóge dekk ba legi yex legi tas sama keur legi duma ko def. Adja bëgg na ma bëgg na ko mi ngi may toppatoo di toppatoo sama njaboot jeex na bugguma leneen ngir yow boy ñew sax to yeglu lan lay yeglu sama keur doomi bàyyi may No, non waxewuma ko foofu. déet ni nga waxe baxul de. non wa ba jam la. jam rek. la won fa won fasiyene wor ba kor gi jeex ma dellu dëkk. luy xoo ah. Diwan Décor, votre personnalité devient un style. Fais